rafetlu ànd bi ak yéen ci suñu gaal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci biir jotaayu xibaar ne suuti ñu faram fàccee. l'information à sa dañu koy door ak village bu gaa lakk ga fa xewoon tey amoon yaakaar ne lakk ga dina fay boobu ba léegi ma ngay continuer di def ay jéegoom tey itam dal dina ñu ci fësal ab communiqué bu yees ginnaaw bu ci euh, ingénieur bay wuyoo ci turu Henri Guenois jële woon ay gaañu gaañu yu métti ba ñu entré woon ko ci hôpital principal bu Ndakaaru tey ci samedi ji dal dina ñuy génne ab communiqué bu yees ngir xable ne moom ingénieur boobu doon wuyoo ci turu Henri Guenois dal dinay mujje ñàkk ba kanam ñu àddu wax ci leneen ndaw yi nga xam xam ñoo nekk ci biir réew mi te doon def seenu manifestation ca place de l'obélisque àllarba bi ñu weesu mu di les hommes de culture euh, dal di nañu leen di jox lu tollook 2 milliards 500 waaye ba tey ñoom dal di dañuy gis ne la leen jox kaal nga su leen kaasul li nga xam ne moom moo di soxla seeni soxla benn yoon ba tax na Ngoné Ndour mi nga xam ne mooy coordonnatrice su CAM dal di génn àddu jëmale ci lu nu mel nee na xaalis bi ñu leen jox ak nu mu mën ci tollu euh, doyu leen te itam li ñu bëgg mooy ñu dal di leen di bàyyi ñu wëyal seeni activité ñu dem ca commune bu mbooroo Mboro askanu fa yeewoo sonn nañ am ay jafe-jafe ci wàllum ndox ginnaaw commune bu Ñaxeen ña nga xam ne ñoo nekkee ca diwaanu Mboro ñoom daal dinañuy génn fësal seenu naqar eh, ginnaaw ak waa TEC mi nga xam ne daal dinañ occupé lépp loo xam ne seen forage la woon ca diwaanu Mboro bu ñu sukkandikoo ci kàddo yi bàjjenu gox bi di wuyoo ci Adja Aïda Fall dina avant ak waa TEC di ñëw ay ndaw yi Mboro ñoo yoroon ñaari forage yi nga xam ne moo nekkee ca diwaanu Mboro amuñu woon benn jafe-jafe ay autorité daal jël li nga xam ne moom moo di forage yooyu jox ko Aquatech ba mu ñëwee ba léegi amuñu jàmm ci li nga xam ne moom moo di wàllum ndox booy def ay branchement sax da ngay fay lu tolloog 109000 francs rawatina facture yu ndox yi nga xam ne saa bu ñëwee gën a te li ñu bëgg mooy ku leen ci dimbali ndox mi ñu dal di koy wàññi ñeel na wàllum branchement mi nga xam ne itam limba nga toll ci 109000 francs wala ñu jëlee fa Aquatech ki nu mu gën a gaawee dal di koy delloo ca ndaw ya ko ci langue politique njiitul Idrissa Seck ginnaaw faatoog opposant bu Mali di Soumaïla Cissé moom Idrissa Seck dal dinay génn def li nga xam ne moom moo di ab communiqué ngir jébbal ab njaalam famille Soumaïla Cissé gouvernement bu euh, Mali ak ñi nga xam ne itam ñoo nekkee ca diwaanu Mali dal di àddu jëmale ci su may Soumaïla Cissé position bi nga xam ne moom la taxawoon ci politiku Mali nee na Mali ñàkk nañ nit boo xam ne espoir la woon waaye itam Afrique ñàkk nañ nit boo xam ne daana jariñ tey dox lépp loo xam ne ay jéego loolu jëmale Afrique kanam ñu wax ci naqarak tiis nga xam ne waa Sen TV moom la ñu xëyee tey ginnaaw bu ñu ñàkkee ndaw loo xam ne mi ngi woon ci seen biir di liggéey mu nekk ab journaliste doon wuyoo uh, ci turu Pape Dieye daal dina ñuy fësal génnuk àddunoom nekkoon ab correspondant bu Zik FM ak fa nga ne moom moo di Sen TV ca diwaanu Mbour ñee ñu ko xamal di uh, ki nga xam ne moo di Mbaye Jacques Diop di responsable de la cellule de communication bu ministre de sports moom moo fësal génnuk àdduna correspondant bu Sen TV boobu di uh, Pape Dieye ñu àddu wax ci wàllum njàng meek njàngale mi lu yees la nga xam ne daal dina ñu koy nemmeeku ca université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru ab directeur général bu bees ci centre des œuvres universitaires bu ndakaaru maanaam kudd ñu ngi koy wax euh, maître Maguette Sène dal dinañu koy nag tab la nga xam ne moom moo di poste bu yees boobu ca kudd dal dinay fësal nag la nga xam ne noonu la wa fas yéene doxee ànd ak ay nitam lépp loo xam ne contrat durée déterminée la nee na dañu koy dal di dindi ba mu set indiwaat leneen loo xam ne lu yees la te décembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal daal di àddu jëmale ci ñi nga xam ne ñoo di chef de département assimilé yi ñu jël li nga xam ne moom moo di seen i responsabilité ak seen disposition ngir daal di informer ñi nga xam ne ñoom ñoo concerné décision yu bees yooyu nga xam ne moom la jëlee ca COUD taal bu taw wet gu nekk lañ koy uppee ginnaaw conférence de presse bu Boy Niang 2 euh, Balla Gaye 2 moom itam daal dinay fas yéene def lu ni mel ginnaaw bu ñu jàppee di ubbi waat lépp loo ne activité sportive la waaye booba gi gisaguñu ay jéego yoo xam ne def nañ ko ci nam daal di nañuy fësal ab communiqué ki nga xam ne moom moo di ministre des sports di Matar Ba fa seene daje tey ci samedi ji ak ki nga xam ne moom moo di euh, ki ngànk CNG di Bira seen ak promoteur yi ngir ñu jéem a xool naka la ñuy taxawalaat làmb ji nu mu gën a gaawee Balla Gaye dal di ànd ak ay nit yoo xam ne ñu ngi ci biir làmb ji ngir nag ñu xool naka la ñuy waxtaane ci seen biir ba mën a convaincre ñi ngànk réew mi ngir ñu mën leen bàyyiwaat ñu def at seen presque ca seeg ca Eumeu euh, ki nga xam ne moom moo di B52 di Bombardier gri Bordeaux ak yeneen mbër yi nga xam ne daal dinañuy wàll si ci seen biir ngir ñu waxtaanee ko ci seen biir. ñu dem ca commune bu Missirah dal dinañu fay nemmeeku viole boo xam ne ci xale yi la ñu koy def benn saa waay boo xam ne mi ngi am uh, fanweeri at ak ñett nekk ab cultivateur maanaam baykat ca boobule diwaan moo dal di sàkku xale boo xam ne uh, mu ngi am li nga xam ne moo di fukki at ak ñeent nekk ab élève bu doon def CM2 ginnaaw bu ay waajuram demee ca tool ya moom ci la dal di ginnaaw ñëw ca kër ga fekk fu xale ba muy togg mu dal di koy forcer ba viole ko waaye xale ba dal di wax la nga xam ne moom la ko waaj def ay waajuram ngir ngir nag ñu dal di ciy taxaw eh, ca la waajuree daal dem porter plainte ka jàpp ne moo def mbir ma jamono ji yoon daal na koy teg loxo ba mu ngi su mandat de dépôt ñu delluwaat ci mbiru Idrissa Seck ci conseil économique social et environnemental ma ngay woy di tabb ay nit ñu muy jëlee ci parti réew mi di leen dugal ci li nga xam ne moom moo di eh, postom bu yees boobu ñu ko fal ngir ñu gën koo jàppale ci lu ñoŋal ab liggéeyam ka mu falaat mi ngi wuyoo ci turus As Babacar Seck nekkoon sa Seck tabbaat tabb gu yees maanaam mu nekk li nga xam ne moom moo di euh, chef bu cabinet ñu wax ci mbiru Modou ginnaaw bu ñu seetloo ne gisuñu ko ci ñaari conférence de presse yi nga xam ne euh, daal dinañ koy amal ci lu ñeel làmb ji mu di bu Boy Niang 2 ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 Modou Lo daal dinañuy fësal ay photo yi wane ne nekkul ci réew mii di Sénégal ma nga fa nga xam ne moo di euh, Dubaï bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi kenn koo xam ne jege ñaale Modou la ginnaaw conférence de presse am bi nga xam ne amaloon na ko moom itam ci fan yële ñu génn ci la daal di demee fa nga xam ne moo di Dubai dal di fay am ñum fa seet ñu gis ca yooyu les photo ñu koy décorer di ko jébbal li nga xam ne moom moo di ay kaamilu alxuraan